tey dañu am mbégte ñëw fii ci euh, kaso bu cees pour indi fi ay matelas indi fi ay euh, ventilateur waaye indi fi ay extincteur yoo xam ne bu jëyee amee mën na fay lakk bi loolu buñ ko mënee def nag dañ ci ànd ak partenariat ak Sonatel nga xam ne ci seen responsabilité sociétale euh, wax dëgg yàlla bi ñu leen sollicité ci yu bari dañ ci boole jàppale maison d'arrêt et de correction yi ma ànd ci ak suma naataango le maire de jalambeere ñu koy wax Bouna Koyta euh, Sonatel jox ñu ay matelas pour ñu jagleel ko euh, ñeenti maison d'arrêt mooy bu Thiès fi ma dëkk bu Kolda bu Mbacké ak bu Rëbës nga xam ne bokk na ci gën a mag boo gisee euh, mënoon nañu laaj Sonatel yeneen matériaux ñu jagleel ko ñi nga xam ne nekkuñu ci kaso waaye ni ñuy dimbalee ñi nekk ci biti noonu la ñu war a dimbalee ñi nekk ci kaso bi parce que kaso nag jombul kenn te ñu bëri ñi ngi fi moo xam dañoo tooñ moo xam dañ leen tooñ ay citoyen lañu am nañu droit comme am nañu ay obligation am nañu droit nag dund ci dundin bu sell am nañu droit ci dund ci sécurité ba tax na matelas yi naam fekk nañ fa ay matelas mais xam nañ ne doolul ventilo naam fekk nañ fi ventilo waaye xam nañ ne dolul euh, incendie yi tamit day am partout kon war na mën a am fii boo gisee ñu indi ko nag dañu xam ne ñii ay citoyen lañu te képp ku nekk ci kaso bi rek ah ci commune nga bàyyi ko ci ci bopp commune ba maire moo fa nekk rôle maire boobu loolu la ñuy jéem a jouer man nag ma taamu ñëw fii ci mag bu Thiès nga xam ne su may mbokk ñoo fi nekk su may euh, dëkkandoo ci région bi moo xam dañu tooñ moo xam dañ leen a tooñ waaye nekk kaso rek doy na nattu kon war nañ fexe ñi fi nekk ñu teg leen ci condition yoo xam ne donte euh, du condition yu bànneex sax waaye dinañ mën a am tuuti péex dinañ mën a am tuuti sécurité ba nga xam ne seen dundin dina fi mën a nekk ba buñ fiy jóge parce que tamit nit nekk na fi jàng fi loo xam ne bu nekkoon ci biti du ko jàng kon kaso neexul waaye Euh, jombul kenn dañuy ñaan yàlla nag yàlla suturaal ñu ba ñu bañ a tooñ ñu bañ ñu tooñ ba ñu dem fa may remercier bu baax l' administration pénitentiaire l' inspecteur Ndiaye wax dëgg yàlla euh, biñ ko waxee mbir mi kontaan na ci kii di kilifaam di le directeur Dembélé tamit naka noonu ba ci le colonel Bocandé nga xam ne bi ñu amee xalaat bi dañuy dem ba ci biroom Sacré-Cœur waxtaan ak moom mu jox ñu euh, euh, contact ñoo ñëpp ñoom tamit ñu def ko seen bés wax dëgg yàlla di ñaan yàlla képp ku fi dugg rek yal na yàlla delloo sa sago nga dellu ci say mbokk waaye boo fa delloo tamit boo nekkoon ci naka su dul noonu yàlla delloo la ci yoonu njub euh, ku fi duggul tamit yàlla musal la si jombul kenn waaye ku ci yàlla mën a musal tamit war nga ci sant yàlla en tout cas am naa mbégte lool di oote nag Sénégalais yëpp ak boor bu ñu ti nekk moo xam góor lañu moo xam jigéen lañu moo xam ndaw lañu moo xaw mag lañu moo xam borom barke bi la moo xam ki néew doole la lépp loo am yaakaar ne doomu aadama mën na ko jëfandikoo rek war nga ko mën a dimbale doomu aadama yi xeebuñu dara ba tax na maa ngi lancer un appel encore une fois ñëpp ñu def ko seen yëfu bopp. parce que fii jombul kenn fii boo fi ñëwul tamit sa mbokk mën na fi ñëw ba tax na euh, nañu sóoraale na ay sénégalais lañu ay citoyens lañu te am nañ droit euh, am avantage yi nga xam ne moom la ñuy añ bu nekkee ci biti.